asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit bokki taalibe yi bokk yi ñu ngi am mbégte ci jokkoo yéen ci kàddu kàddu yoo xam ne ci mbégte la jóge yaakaar ju ma sëkk ci xel mu dal muy kaddu yoo xam ne dañ koy jokk rek ci kaddu yi nga xam ne maam Thierno sëriñ Cheikh Awa Balla moo ko moo ko jot moo ko moo ko jottali mboolem mbokk yi mboolem mbokki taalibe yi mboolem mbokki jullit yi muy kaddu yoo xam ne déglu nañ ko bu baax a baax a baax a baax te rafetlu ko bu baax a baax a baax ndax suñu njariñ la rek ñun ñëpp suñu kon ñëpp gën a xam ne kaddu yooyu maam na wax ànd naa ceeg moom ndax man mii maa ko waroon wax. ndax ni mu ko waree ni mu ko waxee rek ni mu nekkee ci moom rek ni la nekkee ci man waaye alhamdulilah loolu lépp sama tawfeex la sama ndimbal la ndax taxawaay boobu taxawoo ko dul Sëriñ Tuubaa rek la ko. la ko taxawal kon na ñëpp xam ne eh, fii mu waxee fi la gën a baaxe baax na waxtu wu nekk waaye fii mu waxtu waxtu waxtu wi fi la gën a baaxe kon eh, sëriñ bi eh, kenn na tabliwul kenn nattablewul sëñ Tuubaa kenn nattablewul ko biñ ko gisee ba biñ ko noppee gis ci boroom rekk la nekk diggam ak yonent bi liggéey bii mu fi liggéey itam amul kenn ku ko nattable kenn amu ci amu ci kenn koo xam ne si am na am na ci teg nañ ci seen bët yëg nañ ko it ci seen xol kon liggéey bu rëy boobu nga xam ne liggéey na ko fi bàyyil na ko fi amuñu lenn doon na ci moom lu lu liggéeyam boobu kon liggéey boo liggéeyam boobu waruñu am jenn yitte wala benn bëgg-bëgg wala benn xememteef bu dul sàmmal ko liggéeyam bi rek te noonu comme am Thierno waxee noonu rek lan ma lan ko mën a bi dañ ciy nekk. na na na ko bëggee dañ ciy nekk na ko bëggee kon noonu ma ko waxee rek eh, sama làmmiñ la ko waxee ndax noo bokk xalaat ji noo bokk jur gi noo bokk xam gi kon eh, ñëpp xam ne <laughs> loolu mooy dëgg lii dëgg mooy nan delloo nan delloo si sunuy xel delloo si sunuy xol góorgóorlu ci sunuy jikko góorgóorlu nag ci li nga xam ne lu xew moo muy Pastef lu góorgóorlu ci sunuy Pastef parce que bi sëñ bi sëñ bi yóbbu war nañu sëñ sëñ bi yóbbu yóbbaale na su lépp parce que bi war na parce que li nit nit nit ki war a euh, li dox war a dox diggante nit ki ak jaam jaam bi ak moro ak borom bi lépp sëñ bi war nañu ko lépp teg nañ ci suñ bët lépp yëg nañ ko suñuy xol xam nañ ko ci suñuy gis ko ci suñuy xel kon loolu rek a fi nekk nanu góorgóorlu bu baax. liggéeyam bii mu fi bàyyi nu sàmmal ko ko amuñu waru benn xemmemte wala genn bëgg-bëgg wala jenn aajo wala jenn xalaat judul eh, lépp nu jëmee ko ci moom jëmee ko ci eh, eh, sàmmal ko liggéeyam bi sunu kem kàttan kon nag loolu sant sant sant sant ko rek ak sàmmal ko liggéeyam bi moom rekk mooy suñu wartif sant gi sax mënuñu ko dañ ci def dañ ci dañ ci boy dañ ci dañ ci jox dañ koy def ci suñu lépp dañ koy sante suñu lépp. dañ koy sant suñu lépp doora nag jëm jub jëm nag nit ki sàmmal ko liggéey sàmmal ko liggéeyam bii mu fi bàyyi liggéeyam boobu yi suñu lépp a ngi ci suñu suñu ci ci ci la ñuy mën a amee yiw yiw adduna wu mat sëkk amee ko ci yiw yiw àllaxira ci ëllëg ci la ñuy mën a defaroo. ci la ñuy mën a muccee kon góor góor bu baax ci nun ko mën a sant ci lépp lu baax nu nu sax ca di ko ko sant lépp luñ ko mën a taxawal ci sàmmal ko liggéeyam bii suñu kem kàttan nu nekk ca def ci sunu suñu yitte yépp loolu mooy dëgg loolu mooy suñu wartif euh, euh, kon ginnaaw nga xam ne mën nu koo sant waaye war nañ caa di kem kàttan liggéeyam bii li muy rëy rëy rëy war nañ cee kem kàttan ginnaaw loolu nag mooy suñu warteef am na nu mu waxe noo xam ni moo moo moo moo moo moo moo ma ci gën a ñor ndax juddoo fii ci Serigne Touba wëlbati ko eh, di jëf-jëf yi ko kenn. mayetuñ ko kenn kenn koo xam ne am nga mën yaa ngi yaa ngi moom sa bopp te jàpp sa liberté ba am sa sañ-sañ di manifester ci ci ci ci ci ci ci ci lu bokkul ak sëñ xam ne fii moom fii Touba moom jëlee na ko waaye feneen fu mu xewee itam ci ci senegal da daa joxe ndigal ñu faj ko faj gi nag du du du du du du kenn waxuma laa di di di rey kenn. waaye nag yar lay doon képp koo xam ne xam nañ ko ci yow fii ci tubaa moom boo ba defee benn manifeste boo xam ne te lu ñàkk a jublu Sëñ Touba tax loolu moom daañu dañ dañ dañ dañ la daañu daañu toj sa kër génne la ci nga génn Touba loolu rek mooy wax bi jeex na loolu rek mooy ci moo ci gënoona am solo. waaw li ci des nag mooy noonu rek ni ma waxoon rek nañu góorgóorlu bu baax ci suñu di def sax ci def lu baax lu nu man ci lu baax ci ndigal ak di def ndigal ak bàyyi tere lu nu ci lu baax ci def li yàlla bëgg di daw li yàlla tere lu nu ca ci lu baax lu nu mën ci baax lu nu ci jëf jëf suñu képp kattan muy yi nga xam ne mooy xeeti jëf yu baax yëpp lu nu mën nañ ko def ngir sant ko Sëriñ Tuubaa waaw te nag góorgóorlu nag sàmmal ko liggéeyam bi sàmmal ko liggéeyam bi liggéeyam bi yàlla képp xam li nga xam ne def def na ko ci daj na ko ci yàlla rek ko xam kon lu nu mën si suñu kéem kattan nan ko ko nan nan nan fab suñu lépp sàmmale ko liggéeyam bi du du jafe ndax moom boromam ko nekkal nam nekkale woon boromam ni la ko ne borom nekkale fi bu waaye dañuy def suñu wartiif waaye moom moom moom moom boromam ko nekkal te moo moom mooy def mooy dindi kon loolu xel daal na ci bu baax waaye nag danoo am wartiif boo xam ne danoo war buñ ko defee muy seen njëriñ buñ ko deful muy suñ càggante ngoo xam ne eh, neen rek la ñuy indil te neen nga sax mooy jàmm mooy jàmm ji kon nañ góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax waaye nag bokki jullit yi bokki bokki taal bokki ñi nga xam ne ñooy suñuy bokki bopp mooy mbokki jullit yi mbokki taalibe yi képp koo xam ne xamantan ci yow nga am manifester di nekk ci loo xam ne jublu ju ju du jublu Sëñ Tuubaa loolu am na am nañ sañ-sañu te bu nu amuloo sañ-sañ sax daan ko jéem daan ko wuti fu ñu ko mën a jëlee da daa fii ci dëkk bi moom ko fi ku fi kuñ fi gisati nga nga nga nga ni manifester loo xam ne jub ñàkk jub sëñ Tuubaa la loolu daañu ko faj waaye nag euh, na seen xel daal duñu duñu rey kenn duñ duma kenn waaye comme comme mën a doon te fitna ju ju mën a tax ju bokkut ak rey ak euh, rey ak duma fitna ju ju rek daañu ko def waaw daañ daañu toj sa kër daañu la génne waaleykum salaam yaa koy kon jërë leen jëf ndigal laa ngoog ñu bokk dégg li ñuy wax samaan wa taatan te fas ko yéene dégg te fas ko yéene jafe na mu gëne jaay leen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.